saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa semaine bu riis ci wàllu làmb semaine bu saf sàpp ki combat samedi ak dimanche ca Iba Mar ak dimanche ci arène nationale bu ñu ko dooree ca Iba Mar Diop samedi foofu góor gi étudiant moo fa doon daje ak Boy Baldé démonstration de force contre Boy Baldé en 15 minutes 45 secondes loolee la sunu làmb xamle diggante góor gi étudiant ak Boy Baldé jaay doole dëgg la góor gi étudiant koñ e gañ moom Boy Baldé bu kër Mousse góor a jàpp ne mën naa jaar ci kaw góor gi étudiant dóor ko ay ku wàcc ko naka la ko commencé mu riposte mbir ma neexatul trois minutes lañ jot a bëre booy bal di génn saaku ya arbitre dellu si leen jox ko avertissement mbir ma demeewaat noonu deuxième ak troisième round ba yépp góor gi étudiant moo dox ci kaw booy balde moom góor gi étudiant moo dominé ci xeex ba dominé ca bëre ba ñu bëre ba mi-temps dellu góor gi étudiant woon ko boppam daal di koy teg ci suuf Etudiant digganteem ak Onde le na fa Alioune Sèye Junior ba wër ko ndomb Ama Dia magu Alioune Sèye Junior dafa ne daga ca géew ba tombeeg Tapha Mbeur moom it bàyyi di daw mbooleem ñettee woon démb ca Iba Mar li dawloo Tapha Mbeur moo leen yéem dañoo jékki gis Ama Dia dugg ca géew ba fekk boobu Tapha Mbeur moo jekku Alioune Sèye Junior Tapha Mbeur bàyyi wër ndomb ba daw mel ni ku topp Ama Dia Alioune Sèye Junior gestu yem ca moom it dàqanteeg ñoom noonee lañu def action décision boobu yàqu arbitre woote waat gannaaw coow yo fa juddoo teewut arbitre woote waat sifflé waat combat ba ñu dellu si waatee ca combat ba Alioune moo dominé Tapha Mbeur koy daan la sunu làmb xamle foofu mooy Ama Dia entre dans l'enceinte et change le verdict combat na mu na a demee Ama Dia moo ko changé loolee moo war journal ba ne le camp de compte saisir le CNG ñoom staff technique u Tapha am nañ lu leen metti te danañ ko jooy fa bëtul mu am ci réew mi ñaari catégorie muy luur ak lese bu ci nekk am na 64 mbër yu bindu woon ci 64 mbër yi bindu woon ca lese ngóor ñaax moo imposé wu jël final ba ci lese yi bindu woon ña ca gënoon a ràññeeku mën nañ caa jàpp Moussa Faye ngóor ñaax Boy Bawol 2 ak Saliou Diouf Abdoulaye Mbodj Dibakor Sagne Mamadou Thiam ñeenti mbër dem demi-finale bokk na ca Latir Diagne ak Bourong Ndambe Saliou Diouf ngóor ñaax ak finaliste ya foofee it 64 ñoo fa bindu woon ponkali ci lit sans frappe yépp a nga fa woon sëf rëg-rëg ëbbali ak ngel jon foofee franc moo éliminé ponkali jël final ba moo éliminé Georges éliminé Blindé éliminé Pakala éliminé Serigne Ndiaye 2 éliminé Thiaka am Cheikh Tidiane ñaa final daal di ko éliminé ca 8 ya ñu tegoon franc ma gagné final ba jël na 4 millions Cheikh Tidiane ñaa ma ñu daan jot na million francs ñaari demi-finaliste ya di Doudou Sané ak Thiaka Faye ku ci nekk am nga 800 mille quart de ku ci mel ne assurance Serigne Ndiaye 2 Cheikh Diop ak Boy Faye ku ci nekk jot nga 200 francs journal ba xam ne arène nationale démb bëri nay nit bëri nay mbër bañ fa xaymaa lañ fa jaay ci ay billets romb na 11 journal ba xam ne gala bi ni mel dootul yomb mu am ci réew mi bu ñu jàllee ca Lac de Guiers moom digganteem ak dese bareetul kon na wàcc géew jox ma li ma moom ñu bëre pour une troisième fois foofa neex bañ ko laajee ci mbiri tafaatin mu ne tafaatin benn ponkal ragalu ko koo wax mu naan ténor yi dañoo ragal tafaatin amul benn ténor bi ko fi ragal te man la de guerre mësumaa ragal tafaatin aw lenn lu may tàppit ci moom fa ñuy jeexale mooy diggante Modou Lo Ama Baldé commanda moom la mu xamle mooy Modou Lo Ama dana am gannaaw ak lu lamb dañ doon laaj a def promotion combat bi Max Mbergane ne du gëm prison lu bëri ci làmb ji wili doom ja ma yor licence bu mënta gérer événement boobee njort na ne Luc Nicolaï bu génnoon làmb ji dana génn ca sooxe ga jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci tu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah